nataal fanweer ak benn seytaane mi defoon lu ñaaw aadama ak awa ca toolu àjjana ja mu ngi fexe ba tey di def lu bon doomu aadama yi ci loolu day jëfandikoo ak xel yu bon yi ñu leen di woowe rab to rab yooyu léeg-léeg ñu dëkk ci biir nit ñi bi yéesu nekkee ci kaw suuf moom wëraloon na ñépp ñi amoon ay rab rab yu bon yooyu xamoon nañu ne kii mooy yeesu xamoon nañu tamit ne yeesu mooy yàlla te dañoo amoon ragal ci moom amoon na benn nit bu ko woon ak sagoom te fees ak rab yu bon te àndoon na kàttan lool lool lool ba benn calalaa mënuñ ko ko woon yeewe nit ñépp dañ ko ragaloon benn bés nit kooku seen yéesu fu sore ci loolu mu ñëw daw sukk ci ay tànkam yuuxu bu baax loo ma bëggal yéesu yow doomu yàlla aji kawe ji yéesu xàmme rab yi nekk ci biir nit kooku mu ne leen nañu génn ci nit kooku torab yi déggal ko ba noppi nit ki bàyyi yuuxu yi ak di gaañ boppam ndaxte yeesu muccal na ko woon ba giddi ko génne rab yu bon yooyu yépp ci moom ba mu toog toogin bu sell seytaane ku muus la bu fekkee ci gaay kirist yi nga bokk seytaane dalay wuta def lu bon walla mu lay ragalloo waaye yow mi nangu yéesu yéesoo ngeek yow bul am looy tiit te du la bàyyi nga wéet mukk te boo ko ñaanee dina la may te dina la xettali ci lu baree bari te mun ngaa ñaane nii borom bi damay bañ a nangu lépp lu jógewul ci yow muy lu jóge ci seytaane ak i dagam te mun ngaa ñaane nii borom bi damay bañ lépp lu jógewul ci yow te maa ngi lay ñaan nga aar ma ci lépp luy jóge ci seytaane ak i dagam borom bi maa ngi lay gërëm amin fu seytaane déggee nga tudd turu yéesu bu sell boobu dalay sori yéesu dalay aar ba tax waratoo am dara looy ragal muy guddi di bëccëg ak fu mu mën a doon ci picc yi ànd ak rab yu bon yi ak lépp lu mu mën a doon ak fu mu mën a jóge yéesu dala ciy aar yéesu mooy sa jàmm dina la jox jàmm moo tax waratoo am dara looy ragal